man dama ni woon Ndaw Maar wax naa ko nee naa ko bu ma amul candidat ville de ko bu jóg pour defar suñu gox bii du ma politique moom kese moo fi am fulla am fi fayda am fi ngëm-ngëm ni moom dafay dem jëli ville bi waa arrondissement bi nag bu ñu xamee lan mooy ville de Rufisque bu ñu ko xamee dinañ ko jàppale ànd ak moom liggéey pour ñu defar suñu gox bi jàppale xale yi pour ñu ñëw liggéey parce que chômage bi dafa bari te man bokkoon naa ak moom conseil municipal budget deux cent millions lañ am deux cent millions boo ko nee xëf mu jeex kon bu demee bari dafa soxla ville de Rufisque yaakaar naa ñun ñëpp dañu war a xar suñu tànk tubéy dem gañe ji te gis nga école bii muy euh, Moussa Diallo Mbaye Ciss ak nu mu tudd Ousseynou Diagne dañu fiy karawaase Souleymane Ndoye loolu du débat xoolal gis nga bi fi campagne taree dëgg dëkk bi metti lool ana ñi fi nekk naan leader lañ seen sit fan lañ ko doon wanee feneen gisuñu leen wën koo ci wax ñu ni tukki na ñun bu ñu tukkee bu ñu wàccee suñu kër papa la ñuy wàcc seet nit ñi saafonte ak ñoom man Badou mareem ak ñeneen ak ñeneen nit ñi bu la yàlla joxee wërsëg da nga ciy boole doomu aadama yi gënoo leen moomoo leen mais man nañ fi nekk ci dëkk bi ñoom defuñu fi dara ñu taxaw ni Aline Mar la ñuy fal gis nga toog naan Aline Mar mag la wala dafa am ay mandat sonal sa bopp la mais tey relève dañ koy defar ana relève bii mu àndal booy seen jógal ma gis la ana asubal ah? ana mbay fii ana abu gay ah, ay xale rek ñoo ne fi ana Iba Mar Diong ana Pierre mbou fi ay xalé fi ne yu di wax gis nga ñeneen ñi duma leen lim avant élection xamul la yor ñok mbokk ko di nañu donc dama leen ñaanal wax leen ne nañu yalla may ndam parce que yenn saa yi Pierre da ngay gis ku nekk ci mu di ma ñaanal ndam doo ko ñaanal sa bopp ma gañe benn yoon il faut que ñu xam ne boo xasee bokk ci liste yàgg ci ka jiite yéen a yem ci liste bi booy ñaan ñaanalal sa bopp yàlla may la ndam bu ko defee yow sa ndam moo may laal ma doog a am ndam parce que bala maa am ndam il faut que ñu nekk ci liste bi gañe ba pare xam nga lu gën a yomb mooy nga toog ba benn soxla rek la commencé jóg te damay wax ak nit ñi Pierre mbay Ciss Babou Niang Badou Marème amul ci kenn koo xam ne li mu ñàkk ci nit ñi bu ko dencoon tey buy mitin buy campagne dina maye ay un million mais nag da ngeen xam ne da ngeen ko defal nit ki defal ko seen bopp da ngeen xamoon ne aussi bis dina ñëw li ngeen def ci dëkk bi nag moo tax gaa yi amuñu temu campagne gars yi amuñu benn temu campagne benn temu campagne lañu am mooy dafay yàgg dafay yàgg boobu nag Pierre man awma woon tontu bi Badou Marème amul woon tontu bi mbay Ciss mii amul woon tontu bi mais dama ñëw benn meeting rek waaw kañ jigéen ñi tontu nañ ko dama dem mintigu jokkul wàgg rek ma toog ba mu yàgg dégg ñu way ma déglu ma ne a ah, loolu mooy tontu bi kon comme dama fee yàgg muy neex ñaan leen moo def fi mille